asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah dellu siwaat nañ ci sunu bindu juróom benneel ci téere bi di nahju qadaa il ñu war a tàmbalee tey ci laysa shujaahu allazi yaxmi fawaarisahu yowma tiaani ida mal xarbu tastailu mu ne waxaala wax na aaxarun keneen laysa shujaahu déet jàmbaar allazi muy ka nga xam ne yax mi dafay aar fawaarisoho ak gawaram yawma tiaani ca bisub dëbbante ba ida mal xarbu ndaal ndeem xare ba tastaxillu dana tàkk laakin waaye man mooy ka nga xam ne xadda damm na tarfan ab gis aw sana wala mu lem xadaman ndëggu anil maasi walis mooy yàlla fa daaka kookee alfaarisu mooy batal mooy mooy su mooy gawar ga albatalu bay aji jàmbaare bin ben jaal dafa la doon wax ni nga war a sàmmee say bët ba doo xool loo warta xool nee na nit ñi dañuy wax ne ki nga xam ne daal mooy jàmbaar mooy ki nga xam ne dafa ànd ak gawaram dem ca xare ba fexe ba gañe xare ba nit ñu bari dañuy jàpp ne kooku jàmbaar la waaye waykat moom nee na déedéet nee na kooku du jàmbaar jàmbaar la ci li ñu xam ni rek ci ci ci ci ci ci ci aada waaye nee na jàmbaar dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne dafa damm ab gisam ba du xool lu mu warta xool dafa téye itam ay tànkam ba du dem fu mu warta dem maanaam ay tànkam ay bëtam làmmiñam lépp rek daf koo téye ci ak mooy yàlla suñu borom subhaanahu wa taala maanaam dafa téye juróom-ñaari cëram yépp ba duñu mooy yàlla nee na kooku bu ñuy wër jàmbaar kooku mooy jàmbaar dëgg-dëgg waaye kee ñu waxoon moom jàmbaar la waaye jàmbaar la ci saahir rek waaye jàmbaar dëgg-dëgg nag mooy ki nga xam ne téye na ay bëtam téye tànkam ba du jëm ci ak mooy yàlla mu ne walaatu kathir bul baril xaysu kunta foofi man di nekk allahwa fo wa daxka ak ree maa taxarukin ànd yëngutu bu bari wal laxwa ak neen mooy caaxaan wal ittiraaba ak baj-baji maanaam baj-baji wat ak yokkamtiku ila tataluxin jëm ci yër ala xafiyin ci li ñu nëbbu wala walis lu ñu nëbbu rek mus jalaa lu mu mën a doon fa innahu naka loolee de badaa feeñ na alaamata tayshi di màndargam tooy wa xifatal aqli ak woyofum xel liman ñeel ka nga xam ne taawada baaxoo na ko aadoo na ko nee na na ngay moytu itam di baril am fo fu ñu la fekk ngay fo rek mel ne sa temps bi daal fo rek moo tax ñu bind la nee nanga na ko moytoo na nga ko baril yow taalibe bi nanga nga moytu itam reetaan yu bari yu amul benn njariñ na ko moytu na nga moytu itam doo toog benn place di jaabante rek ak yëngatu rek lu ne nga def ko ñëpp di la xool neen loolu na ko moytu ni ko nee na nga moytu itam ay caaxaan nekk ci ay caaxaan rek nee na ay fam yu bari caaxaan yu bari mbalag yu bari nee itam na nga ko moytu ni ko wala sax dóorante bëre bu bari na nga ko moytu wala nga toog ci jataay di yokkamtiku di yër loo xam ne xëy na dañ koo sax na bu bëgguñu ku ko gis yow nga yokkamtiku di xool ngir bëgg a xool loola lan la dañ kumpa nee na loolu itam na nga ko moytandiku ndax nee na jikko yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne eh, ñi amul xel rek ñoo koy def waaye ku am xel dëgg-dëgg eh, du def loolu ku am xel du def loolu moo tax mu ne wakkun nanga nga nekk saakinal jasadi di aji dalu yaram la dal majlisi fa jataay ba wala zimi ta ngay taqoog assumta noppi bi inradin ànd ko dëddu tufat kon def na la jariñ wasbir ta ngay muñ ala sabbi ci ŋàññi wala tujib bul tontu ahadan kenn wakun na nga nekk kama xaala ni ki mu waxe woon rek al adibu aji aji tegginu ja mooy ku bari ka teggin rek wala xadd wala xadd wala xadd aw dina ñëw ci kanam ndax isi tasaabubu ngir naka ŋàññante maxa takaasu bi ànd ak fenlante fenante min aqbahil xisaali bokk na ci jikko yi gën a ñaaw jikko yi gën a bon kata daaru bi nit mi ak lu mel ni ki dóorante bëri ak xeex teyit wa kasratu ki bari ak ree tumitu day rey alxal ba xol ba kon fa xalli lan na nga néewal ab daxka ree tur di kon nga gërëmloo a rabba buur ba daf laa tere woon ne la boo toogee ci jataay na nga moytu yooyu léegi nee na boo toogee ci jataay nag nanga nga war a def mooy nga dal aw yaram boo toogee jataay nga ne tekk toog dal bañ faa nekk di bëre bañ faa nekk di yokkam ko lu ne nga xool ko te it bul fa ëpp ay wax itam boo nekkee ci jataay bul fa ëpp ay wax na nga téye saw làmmiñ neen loolu boo ko defee di nga jariñu nee na itam bokk na ci teggiin itam ngay muñ aw ŋàññ wuñ la ŋàññi ngay muñ ŋàññ woo xam ne dañ la ko ŋàññi nga dégg ko nee na nga muñ ko bañ a tontu ni nga xamee ne noonu la waykat bi waxe woon dina ko indi ci kanam ndax nee loolu li muy jur rek maanaam jikko yu ñaaw lay jur maanaam ŋàññante ak fenlante diw ŋàññi la nga ŋàññi ko wala mu waxal la dul noona yow it nga waxal ko ne ko su dul noona nee na loolu bokk na ci jikko yi gën a bon te ab taalibi daf ko war a moytandiku kon nit bu la ŋàññee donte dégg nga ŋàññ wa sax yow bul ko faale bul ko tontu dina la leeral ci kanam incha allah naka itam naka noonu itam dóorante wala bëre wala xeex nee na yooyu tamit na nga ko moytandiku ab murit ab taalibe ab jullit war naa wattandiku loolu nee na itam bari ay ree li tax mu la koy tere maanaam dafay rey ab xol te ab xol mooy li ëpp solo ci doomu aadama bu dundee rek xol booba baax waaye xol ba bu deewee rek daanaka xol booba sànni rek a cay gën kon bul baril ay ree da ngay néewal say ree bu fekkente ne bëgg ngaa am ngërëmal yàlla lim la wax nag loolu la lay saraal mu ne yaxani dafa jubloo wax ne an na minal adabi bokk na ci teggin almardi yi yad yu ñu gërëm an laa tukkusira ci ngay bañ a baril a wa fo wa daxka ak reetaan yu bari wal laxwa ak caaxaan wal ittiraaba ak baj-baji wa taxarruka ak yëngatu wa tataawula ak yoqamtiku li tatalia ngir nga yër alaama jëm ci la nga xam ne xafiye nëbb na fa innahu naka loolu min alaamati taysi bokk na ci màndargam tooy wa xifatil aqli ak saakinal jasadi wala bo saakinan di aji dal maa dumta li sax nga fil majlisi ca jataay ba mu laasima sumti ta ngay takkoog noppi illaa an tus ala ndere bu deef laa laaj xan say in walis dara fa tujji ba te ngay tontu xan walis ko bi xaf di sawtin ànd ak gu suufe aw taxtaaju sax aw taxtaaju wala nga wala sax ngay aajo wa ila suaali jëm ci laaj ga aw talabihi wala ak sàkkoom fa tatakallama te ngay wax ala qadril xaajati kem aajo ja rek wala tazidu tabul dolli ala ma jëm ci loo xam ne tattaru day lor jëm ci moom min zalika ci fa inna fi sumti naka nekk na ci noppikat sitran ayib waraaxatan ak nooflaay kama xiila nekk mu waxe te mooy ustur na nga suturaal al ayba ayib ja mastataata sa kem kàttan bi sumti ci noppi in inna fi sumti naka nekk na ci noppi raaxatan nooflaay li samooti ñel noppikat ba wala ñeel waay noppi ña rek waj xal ta nga def asumta noppi jawaaban muy ab tontu in ayita ndem lottu nga ci tontu ndax kat rubba xawlin bari wax joo xam ne jawaabu xoo ab tontom fi sukkooti nekk na ci noppi tayit wa fil xikami nekk na ci wax yu am njariñ yi ñu ne lawkaana nem nekkoon na alkalaamu wax fiddatan di xaalis lakaana kon mu nekk assukootu noppi dahaban di wurus li la doon wax moom la lay saraal mu ne bokk na ci teggin yi nga xam ne mooy teggin yi ñu gërëm mooy ngay moytandiku fa mu bari di moytandiku itam reetaan yu bari di moytandiku itam caaxaan nekk ci ay neen rek fu ñu la fekk ci caaxaan rek ngay nekk akum fo ak ak bëre na nga moytandikum bëre rawatina xeex nanga moytu itam nekk ci jataay di yëngatu rek ëpp fa ëpp fa bruit na nga moytu ni itam nekk ci jataay di yoqamtiku di xool di jëm ci loo xam ne dañ koo nëbb bëgguñu ku ko gis rawatina nga ñëw ci néegub jàmbur toog ca lal ba di xool di yoqamtiku di xool kaw armoire ba xam añ nañ fa dara wala déet wala di sëgg ca ron lal ya wala di xool am loo fay lu yooyu yëpp nee na loolu ku xelam woyof rek moo koy def nee na boo toogee ci jataay na nga dal nga toog toogin wu dal bul yëngatu yëngatu bu bari bu ëpp bruit te nga takkoog noppi itam lu dul ne dañ laa laaj buñ la laajee itam nga tontu kem lañ la laaj te booy tontu na nga tontu tontu gu xam ne maanaam tontu gu woyof lay doon tontu gu suufe bul wax ca kaw daal ci gàttal bul wax ca kaw maanaam tontu gu yaru daal bu fekkente ne yow yaa aajowoo laaj itam nga mën ngaa laaj mën ngaa man man man mën ngaa laaj bu fekkente ne dañ laa laaj itam mën ngaa tontu itam waaye kem lañ la laaj rek nga tontu ca loola bañ bañ caa dolli leneen bay lor. ndax nee na li tax mu lay digal loolu nee na noppi dafa bari am nooflaay ni nga xamee ne noonu la ko waykat bi waxee te mooy waykat bi dafa wax ne nangay ngay suturaal say ayib ci noppi sa kem kàttan ndax noppi nooflaay bi ci nekk ñi ko def rek ñoo ko xam te it na ngay def noppi itam muy sab tontu ci yenn wax yi ndax nee na bari na wax yoo xam ne seeni tontu mooy noppi bañ a tontu bari na wax yoo xam ne lay ful la mooy nga bañ caa waaye jekk di ca tontu sax ak ak ak manki lay doon ak matadi lay doon ak ñàkk fula lay doon moo tax mu ne bari na ci wax yoo xam ne la leen di tontu mooy noppi tayit boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo bari xam-xam lool xam itam ay xekkam mën a wax wax yu am njariñ nee nañ jëmmi wax bu fekkonte ne dafa riis ba mel ne xaalis nee kon jëmmi noppi daf koy gën ba mel ni wurus mel ne or kon noppi lu ñu taamu la mu ne wa isa jaahalaka ndéem réere na la ahadun kenn fa faarid na nga dëddu anhu walis ko wala simita ngay taqoog asumta noppi kama ni ki waxee allahu yàlla taala kawe na wa ahrid na nga dëddu anil jaahilina walif way réer ña te mooy way xamadi ña ak ba mu waxee itam ne wa ida qaatabahumu ndéem waxa ndéem wàqante ne ñoom ñoom aljaahiluuna way réer ña xaaloo ñu wax salaaman jàmm wala sax kama xaale ni mu waxee asaaxiru waykat ba te mooy wala xadd amurru bariwaana ma romb wala amaana ma romb rek xalal la imi ci aji soxor wala aji koo xam ne jëmul fenn rek yasub bu nii mu may ŋàññi wa axifu tamay fegu su ma topp ma wax ne laa yaani nii daal jubluwuma laa yaani nii jubluwuma wa anna tasaabu bo neka neka neka ŋàññante wa takasuba ak fenante min aqbahil xisaali bokk na ci jikko yi gën a ñaaw min aqbahil axwaali bokk na ci mbir yi gën a ñaaw wa anna kasrata daxki naka bari reetaan itam tummitu day rey al xol ba fa in aratta ndem bëgg nga anta foosa nga tuufu te mooy nga am beri daa rabbika ci ngërëmal sa borom kon fa xallilan fa xalli fa xallili daxka na ngay néewal say ree xaala wax na allahu yàlla taala kawe na fal ya daxakoo dee leen ree xalilan tuuti lu néew hmm. nee na ba tey bokk na ci teggiin muy noppi gii mu la wax nee na ba ci sax bu la nit réeree wax la loo xam ne warula la koo wax di wàqanteeg yow wàqante woo xam ne xëy na ñàkk teggiin la yow bu ko ca topp nee na na ko dëddu rek bañ koo bañ koo faale bañ koo tontu ndax sunu borom moom la digaloon yonent bi sallallahu alayhi wa naka noonu itam ba muy tàgg ibaadu rahmaan sunu borom ci alquran nee na ñooñu ay jaam lañ yoo xam ne nit ki xamadi bu ñëwee di waxanteeg ñoom sax bëgg a indi fitna nee na ñoom day nee na ñoom dañuy waxanteeg ñoom jàmm nee na ñun daal jàmm lañuy wax fexe ba génn ca waaye duñ duñ duñ woote mukk aw ay nee na na nga mel itam ni nga xam ne noonu la waykat bi waxe woon mooy wala xadd gam la waxoon ca ci bind bu njëkk ba moom la lay wax nii mooy door a ñëw nii nee na waykat bi dafa wax ne léeg-léeg de dinaa romb jëmm ju soxor mu may ŋàññi waaye man danaa xam ne sax man lay waxal waaye ngir bañ fitna dama naan ah kii de waxut ak man keneen lay waxal xëy na ngir rek bañ koo topp loolu jikko ju rafet la ba tey itam nee na ŋàññante ak fenante ndax ŋàññante mooy indi fenante rek nee na loolu dafa bokk ci jikko yi nga xam ne jikko yu bon la jikko yi gën a bon ci la bokk maanaam ci jikko yi gën a bon ak mbir yi gën a bon ci la bokk nee na itam bari ree itam baaxul dafay wowal xol nit ki warta bari ay ree nee foo toll na ngay néewal say ree bu fekkente ne bëgg nga ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala ndax kat sunu borom sax moo wax ci sunu borom moo wax ci alquran ne fal yadhaku qalilan am na ñuy néew lu nañuy nañuy ree lu néew a néew kon foofu la ñuy yamale bind bi euh, ba beneen yoon incha allah ñu jàll ci bind bi ci topp incha allah